dalee nag jàmm ci li gën a fës ci net bi ñu daal di koy doore Dakaractu mi xëy ci Baye Modou Fall ñu xamee ko ci tur booy jinne jàpp nañ ko niki démb ci ay booru 4 heures du matin ca autoroute à péage moom i ak i ñooñam li waral jàpp gi nag mooy dañoo doon waajal daaji benn kër ca Touba ci la élément bu compagnie bu Thiès yàq seen plan ñoom nag fekk nañ ci ñoom ay ngannaay yu bëree bëri lu mel ni ay laser ay marto ak i oto ginnaaw bi ñu jógee Dakaractu dañuy daal di ñëw ci Seneweb mi wax ci Gabriel moom Gabriel dañ ko daal di génne ci appartement bi mu nekkoon ginnaaw bi mu toogee ay weer fayul borom appartement boobu ko xamle waaye ba tey mbir mi jeexagul ndax Gabriel dafa daal di génn ngir leeral mbir mi ni mu demee moom dal tudd na ci Pierre Goudiaby Atepa ak Babacar Touré journaliste Kewelu nee na seen loxo génnu ci ñu ñëw ci senenet point net mi wax ci njiitu mouvement gëm sa bopp Bougane Gueye Dany mi nekk ci tournée bu am solo ngir waajal lii di élection présidentielle bu 2024 moom Bougane mu ngi woon démb ca ca Grand Yoff ngir taseek ak askan bi fa yeewoo ngir mën leen jébbal programme am di wax ni ñoom yoruñu simple coalition waaye mouvement bu yaatu la ñu am di leen xamal ni tamit fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre la ñuy def seen investiture bu mag fale ca place de la nation ci ajuma ji la kii di Oumar Sall di janok ak procureur Sénégal mu ngi xamal ni boo moytuwul dina am ay jàmbarloo diggante ñiy fare ak Oumar ak Tidiane yi ndax ci audience yi dañoo daal di mobiliser wu wutali ca tribunal ba ngir taxaw kii di Omar Sall ñu daal di koy ndar keppe ak basiru jomay fay mi nekk jamono ji ca kaso ba waaye DGE naka ñoo ngi koy artu ci li jëm ci parrainage yi bi ñu sukkandikoo ci Sen News bu fekkee Bassirou dafa bëgg bokk ci élection yi du mun a demee ci parti bi di Pastef ndax dañ ko tas su ko moyul du mun a bokk ci élection yi kàddu yi nag mu ngi jóge ci direction général des élections